jëre ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawal Info TV mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci bitim réew mbokk yi nag euh, ñu leen di nuyoo fi nga xam ne fi lañ leen baaxoo di nuyoo fii ci dëkk bu seel bi di Touba mbokk yi xam ngeen ne élection locale yi jàll na fii ci Touba nag xam ngeen ne euh, élection yi ni muy demee ak ni muy demee ci yeneen gox yi dafa am wute ndax fii bu dee ci commune bi bulletin blanc la ak bulletin bu Benno Bokk Yaakaar gis nañ ne bulletin blanc bi nag moom moo fi lu bare baree bari waaye conseil départemental amal nañ ko tamit fii ci commune bu Touba voté nañ ko mun doxoon nag euh, diggante ñeenti euh, ñeenti candidat ñi nga xam ne nag ñooy waa coalition yeeyu askan wi ñoom ñu gagné li nga xam ne mooy département bi euh, mbokki nag dañu ñoo ngi ci ci direct bi ak Serigne Cheikh Thioro Mbacké mi nga xam ne mooy coordonnateur Pastef ci département bu Mbacké moom ma ci ligne bi Serigne bi maa ngi lay nuyu allo sëñ maa ngi lay nuyu Abdou Khadir ngi lay fay waaw sëriñ bi euh, ñoo ngi leen di féliciter ci euh, victoire bi nga xamante ni tey euh, moom ngeen am yéen yeewi askan wi yéen waa Pastef seen taxawaay tamit ci département bi ràññeeku na rawatina yow mi nga xam ne yaay coordonnateur bi victoire bi lan nga ci wax wala ci élection yi. waaw xanaa di sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi di sant Serigne Touba bu baax baax. di jërëjëfaat Serigne Fallou Mbacké. mi nga xamante ni moo jël directeur de campagne teg ko suñu loxo. ñu ànd ci waa comité électoral bi yëpp di sant nag population Touba bi yëpp ndax génn nañ massivement voté ba pare porte seen choix ci coalition Yewwi Askan Wi loolu nag yaakaar naa ñu amuñ seen fay dañ leen sant di leen gërëm ba pare nag insécurité bi ku ci nekk gis na ni mu demee ndax nit ku ci nekk da nga jël def comme say fi bopp. ah mais campagne bi yëpp campagne bi yow yaa nekkoon directeur campagne Serigne Fallou hmm. ci département bi ndax campagne bi yomboon na si yéen. non campagne bi yomboon na lool lool lool surtout au niveau Touba. ndax foo jaar liñ lay njëkk wax mbaa yeewee askan wi ngeen àndal mbaa président Ousmane Sonko ngeen àndal kon liñ doon wax ci weer yële jàll yëpp ne Touba siège bi léegi changé na Ousmane Sonko moo ko moom jàpp naa ne élection yi na ko. Hmm. ndax amul benn centre de vote bu nekk Touba boo xamante ni yeewee askan wi gëñëw ko. Hmm. te li doy waar ci coalition yi mën nga ne Sëñ Fall benn parti politique la àndal baatar gàmbañ ci département bi muy Pastef. kon nag ñu ngi jaajëfalaat bu baax a baax waa Pastef yëpp waaw mais est-ce que yéen seen i moyen tamit seen moyen de campagne est que euh, kii woon na est-ce que amoon ngeen ay moyen pour def campagne non non ay moyen mais moyen moom kum ku muy tax a def politique yaakaar naa war ngaa toog sa kër ndax population Touba kenn mënu leen jënd mais moyen pour déplacer wu pour déplacer wu seen i loolu ku ci nekk booy ñëw yaa indi sa oto bopp la la cay la la cay dem ñoo yaa ko ci defal sa bopp kon nag mooy moom yaakaar naa ku ci nekk yow yaa gënoon a bëgg victoire bi sëñ Fallou sax kon nag loolu ñi nga xamante ñoo nekkoon ci territoire campagne sëñ Fallou ñoom la ñuy sant di nekk victoire bi yow yaa ko gënoon a gëm a mhm. ne Touba ala kulli alin président Ousmane Sonko da koy lu tax Touba lu tax ji léegi ndax da ngay gis sax ñoo xam ne euh, voté nañ yeeyu askan wi mais au lieu que ñu wax yeeyu askan lañ votel mais da dégg ñu ne la Ousmane Sonko lañ votel waa xam nga li ko war a Abdou Khadir lu yomb leer la mooy Touba dëkku bañkat la ñoom booy bañ ñu ànd ak yow ci bañ gi mais bu fekkee dañ leen a bëgg mbubboo ci bañ ñu ànd ak yow nga jékki-jékki wan leen ne dañ la fay naan yukku ne yekk bu naqari te wan nañ ko Idriss Seck 2019 bi jàll moo gañee ñu ngi koy sotle mais bi mu demee ànd ak mburoog soow Touba ne nañ ko fay ñukk président Ousmane Sonko nag li tax Touba bëgg ko lu yomb la mooy population Touba dañoo gëm seen bopp dañoo gis seen bopp ci li muy def seen bopp ci li muy def d'abord Mhm. foo jaar foo jaar mbaa Ousmane Sonko mi ngi ci jàmm mbaa Ousmane Sonko Ziguinchor population Touba ni ñu yittewoo woon élection Ziguinchor sax man ne yittewoo woon élection Touba yi. Mhm. kon daal ñu ngi leen di jaajëfal di di leen gërëm bu baax a li des ci kanam est-ce que du moo ëpp ndax ñoo ngi waajal ay législatives ñoo ngi waajal ay présidentielles ban taxawaay ngeen xalaat euh, rawatina yéen waa Yewwi wala yéen waa Pastef au niveau départemental. non euh, taxawaay bi ñu am rek mooy taxawaay bii ñu am ci local yi rek mooy sensibiliser population Touba bi. xamal leen projet bi am ne du projet boo xamante ni projet kenn nit la mais projet collectif la. Mhm. lii nag moom dañ ciy continuer ndax xam nañ ne département bi moom mi ngi ci loxo Ousmane Sonko te dootu ci jógati. waaw ko wax. Ah, waaw mont nañ fi quatre ñi di ko mais mais cellules yooyu nag tey jii firndeel na li ñu def génn voté massivement. dëgg la léegi mais Serigne Cheikh Thioro gis nañ Ousmane Sonko Touba ay kilifa jóg. Euh, di diaboliser fii def campagne de diabolisation Ousmane Sonko ja jaxase ko euh, di ko diaboliser <laughs> kilifa diine yi euh, mais gis nañ ne loolu dafa mel ni feeñul ci élection yi. non du ci feeñ ndax li ko waral mooy li ñim jaxasool ci ay kilifa Abdou Khadir ñëwee ko wax ci ab rajo wala ma di ko wax ci ab site internet. Mhm. Ousmane Sonko li ko bëgg ci ay kilifa di ko recevoir discrètement loolu ñëwee ma ko wax. ci Touba. waaw ñi koy diaboliser nag moom. mooy gone yi nga xam ne dañoo xiif bëgg xaalis. Hmm. ñoo liggéey. Hmm. ñooñu boo leen joxee ñaar fukki junni wala nga jox leen deux cent mille loo leen def loo ñu def ko ba ñu ñëw am hmm. ko wa ilaa nga giñ ko ak nooxoor moo yi perte na Touba bu yàgg. depuis le 22 octobre 2016 ba léegi ku jóg boo fekkee sa morom jóg ci ay kilifa seen li ñuy woowee ay seen marab boobu du jàll. ndax heure bu ñu ko defee mooy gën a yokk Ousmane Sonko daraja ci Tuubaa mooy tax kilifa yi gën koo bëgg. Ah. te joxatoo wut ay n'importe quel kilifa. kilifa yi gën a maaru ci dëkk bi. gën cee ragal yàlla ñooñu lay jaxasoo ñoo koy recevoir di ko ñaar. Ah. kon nag képp koo xamante ni ak njub nekkul ci yow yow yaa contre mais président Ousmane Sonko borom deret ju set wicc nit ku baax nit ku bëgg lu baax du contre Ousmane Sonko. waa mais dañoo gis tamit euh, ñi nga xam ne tey ñoo nekk benn bokk yaakaar du ñëpp mais dafa am ñoo xam ne euh, Touba ñu bari dañuy ŋàññi comportement ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci benn bokk yaakaar est-ce que yéen tamit di ngeen fexe ba am bi nga xam ne tey moom ngeen di moom ngeen di incarner seen i ak ñi nga xam ne ñooy jàppale Pastef ci Touba. xam nga Abdou Khadir ñun politique dugguñ ci rek ngir dugg ci ngir bëgg dara dugguñ ci politique tamit ngir ŋàññante loolu buñ ci naree rek ñu toog suñu kër pro bañ na ko ba seen première dugg si ci politique mooy Ousmane Sonko moo ñu dugal ci politique te bàyyi politique ñu bàyyi politique loolu wax nañ ko fu nekk kon ne projet bii ñu am kenn a loolu wax ju yàqu la daal kilifa gu toog fa nga war toog jàpp sa njàmbur duggoo ci ay caaxaan gëruñ la ñun amuñu ak affaire. mais mais victoire bi képp koo xamante ni. Mhm. projet ñu nekk bëgg nga koo nax Sahel bala nga koo faagagal ñun suñu bakkan day ko jox ba pare. mais victoire bi leer na. victoire bi moom xanaa ku dof rek moo koy contesté mais département bi moom munoo gagné commune nekk Touba nga gagné commune bu Touba centre yi fi nekk yëpp nga gagné ko. nga naan victoire bi leer na ak loolu yaakaar naa ko jàpp la 45 45 centre presque 600 euh, ba pare gagné Sadio teg ci. gagné Sadio. Ah, eh non non bettuñu. Mm-hmm. am na ñu bett nag mais bettuñu ndax coalition boo xoolee biñ ko tegee ci biñ ko tegee ci département parti politique ji nekk yëpp dañoo boycotté coalition bi. ba pare doon battre campagne pour Sëñ Fallu perte. kon mën naa la euh, coalition yi askan wi buñ koy wax au niveau département. Pastef moo tax. mais mais Pastef waneet na ci boppam. mais gis nañ ne euh, am na euh, ñu bari ci yeewi ñoo ngi accusé di tuumaal presse bi corrompu par parlo ñu gis ne presse bi ñenn ñu tuumaal nañ leen ne dañoo par parlo bu baax a baax. far ci far ci benn bopp loolu Abdou Khadir daa fes sax. Mhm. daa fes ndax yow gis nga campagne bi au niveau département amuñ benn couvrir médiatique boo xamante ni yeewi askan wi am na ko duñ ñu laaj seen campagne fan ngeen dem. day mel ne sax ñun nekkuñ foon hmm. liñ doon def lépp ci ay site internet lañ ko doon jaarale hmm. di développement spéciale wal fadir nag hmm. mais Sénégalais yi moom presse bu jàng taxul ñu xam bi internet amee nit ñi am Facebook am lépp information kenn mënut leen ko nëbb kenn mënut leen kenn mënut leen ko masqué di gërëm waa mouvement Mat Kaaw Fallou Diop jiite ko am na taxawaay bu rafet rafet rafet rafet ci coalition Yewwi Askan waaw ñu ngi leen di ne ànd nañ ñu ñoom campagne muy ñoom Pape Ndiaye mais victoire di gërëm ni képp ku yor bët di xool bët la mais boobu na xanaa de Ousmane jibile wut sax ko sax ah boobu nag du jibile euh, foofu moom xam naa ne gars yi bari nañoo du match Ousmane à partir de 2024 lay du moom lay civiler sax mais ñun moom la ñuy civiler. 2024 ndax Ousmane ku ko moom. léegi. Euh, moom bu paree ñaari mandaam mhm. ba def Sénégal comme comme comme réew yi gën a développé ci àdduna mhm. mais euh, Dakar euh, Dakar yaa ngi Touba mais mhm. Dakar Barthélémy Dias ni mu def Abdoulaye Diouf saar jaar ci koom jàll en tant que ministre de la santé ak pouvoir bi benn bokk yaakaar ñu yori milliards. ñu gañee ko tey noonu. loolu ah xanaa xanaa di ci kontaan rek ndax victoire yëpp mën naa ne boobu bokk na ci ma ci gën a neex ndax euh, maire yu bëree bëri gis nañ ci ànd taxawu Sénégal ci lañ leen faloon ñu transmis dem ci Macky Sall mais Dakar war nañ leen du population bu ñu jaay du population bu ñu jënd. Hmm. tey jii dañuy féliciter waat encore une fa Barthélémy Dias te xam ne Sénégal mën naa compter ci moom Sénégal am na ci moom yaakaar. Hmm. di féliciter nag sama xarit sama frère Jamil Sané bu Parcelles Assainies. Hmm. ak Khadija Mahécor Diouf ak Ahmed Aïdara. ak euh, Maïmouna Dièye kontaan nañ lool ak Birame Souleye Diop ak Babacar Diop. jërëjëf lii daal waree na ne bu doon présidentiel. yéen a gagné le premier tour. d' accord jërëjëf euh, Serigne Cheikh Thioro ñu fàttali ne yow yaa nekkoon directeur campagne ñu Serigne Fallou Mbacke mi nekkoon candidat yeewu askan wi ci conseil départemental bu Mbacke yaay coordonnateur Pastef ci département bu Mbacke euh, ñu lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm waa Bawol info yëpp seen taxawaay ci département bi ak couvrir médiatique bi am na solo lool yàlla na ko yàlla a mag ci àdduna bi ba def ko